bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci Seydina Muhammad sangu-sang yi gërëm suñu ñaari waajur di nuyu internet Tumusli TV yëpp ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kenn ku ci nekk maa ngi lay fekk ba fa nga toog ne la jàpp loxo siyaar la jox la sa wàccuwaay ci barke Cheikhul Khadim ñu dellu tey nag di waxtaan neewaat suñu deuxième phase émission xale ak vacances xale ak waajur ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñuy ñaan émission bi nag jàll wax dëgg yàlla ñëpp jël ci jël ci leçon ndax loolu rek lañ ci jublu ñu ngi jeexale woon suñu premier émission ci xale ak bu ko waajuram bu jigéen yónnee yónnent bu ko ñor mu dellusiwaat siwaat fekk waajuram boobu am gan bu ko waajur wi xoolee mu xool ko mu ne ko jàkk wara doxantu ba ca néeg ba toog xaar waajuram wu jigéen woowu mu fekkaat ko ca bërëb ba ci lañu ñu toll woon moom la ñuy yeggali euh, maa ngi doon wax naan xale bu ko yaayam yónniwaan ba mu ñëw mu ñëw fekk gan goo xam ne bàyyiwu ko fa woon bu nee jàkk waajuram waajuram ne ko jàkk foofu rek war naa xam ni kat lii ko yaayam yónni woon dafa war a doxantu ba ca biir néeg ba xaar fa waajuram te bañ a yàkkamti nag waaye da gis xale boo xamante ne boo ko yónnee mu war a toog ca néeg ba xaar waajuram mu jigéen ma nga ca yàkkamti ga bu yéexee sax dana ko won ne ko damaa yàkkamti ci loo xam ne warul ndax xale amul lu dul kilifa kilifaam xale amul lu dul déglu ndigal bàyyi ay tere waaye lépp rek ma naan ci fóot ci fóotu soxna yi la ndax bu njëkk danga daan gis sa waajur wu jigéen di la yar ni mu ko bëggee ak fi mu ko bëggee bu lay corriger sax doo gis ku sañ a jóg àddu ca walla di àtte waaye léegi gis naa ne xale yaayam dana ko jël di ko corriger sax nga gis magam bu góor walla magam bu jigéen mu ngi koy jéem a défendre ca kanamu yaay ja foofu la ñàkk yar tàmbalee. foofu la ñàkk taalibe tàmbalee lépp rek nag manaan ci fëtu yaay la ndax waajuru góor wi day xëy wuti bu xëyee wuti daanaka waxtu wa muy dellu siwaat ca kër ga dana ngoone lool diggante ba muy ñëw bu dul 6 heures ma nga jëm 19 heures 20 heures yegg si kooku xar kanamu doomam rek lay xam waaye du mën xam defo doom ji waajur wu jigéen wa muy bàyyi ca kër ga mu war a yar war a defar doomam ba nga xamante ne bu ëllëgee bu ko bàyyam gisee kontaan doom jaa ngay def ay erreur muy nëbb doom jaa ngay màggaale loo xam ne bu ëllëgee waxul ma la mu yem ca moom ndeysaan waaye waajur wu góor wa daan wër di uti lu mu am ngir indil ay doomam sax coono gam daan daj war a toog noppalu ko bu bu jamono jooju ñëwee du noppal ko ndax boobu fekk na yaay ji nëbb naa nëbb ba nga xamante ne xale bi màggaale na ak ay ayibam nga xam ne fu mu jógee rek waajuru góor wi dal dal di jóg topp ca gannaawam ñuy lijjanti xale bi ndax yaay da daan yar doom waaye gis naa ne yaayu tey dañu naan njaboot gi njabootu kanaara la déedéet man nanguwuma loolu man duma la jur sa baay jiitu ma topp ci ginnaawam nga war maa topp man ma jiital la topp sa ginnaaw duma ko def man damay jiitu nga topp ci man di xool ni may doxe ak ni may waxe ngay defee noonu ndax loolu mooy muccal xale loolu mooy ak taalibe ndax ca la sa waajur wu góor di xam ne kat soxna si ma jëloon mu doy ma mu jël ko indi ko ci kër gi ah la ma gisoon ca moom ba tax ma bëgg mu def ko ci sama njaboot mu ngi ca moom ba tey mu ngi koy def ci njaboot gi kon kooku noppal na boroom këram kooku noppal na sang bi ko tànnoon ci àdduna indi ko joxeel ko ñeent ak taraas indi ko ci biir kër gi boobu soxna noppal na ko boo ne njaboot gi njabootu kanaara la mënoo cee am lu neex lu la ci naqari rek nga cee am boo leen jàngaloo du ñu jàng boo leen aayee du ñu bàyyi boo leen jàngaloo du ñu jàng boo leen aayee du ñu bàyyi mu nekk loo xam ne ci àdduna boo cay dox danga war a nekk nit koo xamante ne bii booy toppatoo say doom da ngay calculer kat ne xale yii ëllëg ñooy dooni ñooy dooni magu ëllëg su ko defee da leen yar ci ñu am ak taalibe am personnalité am ngor am jom man day noonu laay noonu laa bëgg sama njaboot deme te noonu laay demeek ñoom ndax lu dul ak taalibe du ma ci def du ma ci dindi dama mës toog sama sëriñ di ñëw ci kër gi di fa wàccee si kaamir ma di ko nuyu sëñ baara mu sëñ chony bu maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam ndax gis naa ni mu taxawoo njaboot gi taxawoo ma ko war fee ñëw wàcce fi kaamir te fi doon ñëw di ànd ak ay ay mbokk sangam rek ni moom waa kër sëriñ Touba ñoo ñëwoon di wàcce fii kaamir ci kër gi bi ma jógee marché ma gis sama doom bu góor sama taaw bu góor mi ngi tudd Alaaji Fàllu toog ci biti bi mu toogee ci biti dama gis ne bi taxi bi gaaree rek dafa waroon def bërét waaye bi taxi bi gaaree yar naa ko ci taalibe xam naa ne dina ma jàppale waaye maanaam man lu des rek dama koy corriger ci saa si duma bàyyi mu jàll ndax bi taxi bi gaaree rek dafa waroon def bërét te xam ne yaayama ne ci biir te li mu ne ci biir mbirum mbirum sëñ bi la moom la ñuy lijjanti tey comme ci ak taalibe laa ko yar ca daara ja man noonu laa gis ne noonu la waroon taxawee mu xaw a def batma ba bi chauffeur bi ubbi capote bi bëgg a wàccee bagage yi keroog damaa aalu ci kawam te foofoo ngi fees dell ma ne ko lenn rek laa lay xamal la sëñ Touba waxoon rek laa wax aw doom aw ma jarbaat liggéeyu sëriñ tuubaa bii ci kattanu yàlla ak mbaaxam ku ma ci mën rek jàppal ne koo koy sama taaw waaye ku ma ci mënul rek lijjantiwuma la daal di ko romb waaye keroog jant boobu yéegal na bagage yëpp ca kaw togg na togg gi dëpp mbana yi raxas di daw ba tubay jama soloon dafa weexoon tàll di tubay ju bees waaye mag may won ne tubay jii sax laay liggéeyee far du ma simmeeku ma nit ba ñu liggéeyee ba cant gi paase damaa jël tubay jooju man maa ko fóotal sans bopp ba mu set ma weer ko defal ko ko àddiya borom tuubaa ndax boobu maa ngi koy won ne li nga ma doon liggéeyal gis naa ko waaye lii la la sëñ bi fayee maanaam lépp lu nekk ci yow dana ko raxas ba mu set fóot ko ba mu set weeral la ko ci liñ gi mu weexaat tàll ci baatin laay waxe de ndax li ci ëpp ci baatin laay doxe euh, déggal sama boroom kër tax na ñu woote xel koom ma liggéeyi bésu àjjuma ba jant bi sox ñibbisi ci kër gi fi ma ko teg di toppatoo baayam am benn pot bu nekkoon ca fenêtre ba def à froid moom sama taaw bu góor bi mu lekk à froid boobu bi mu yuuxoo rek fi ma ne ci néeg bi ci baayam laa ko ne à froid bi ci fenêtre bi la bi ma dawee dem ca moom fomp gémmiñ gi ba mu set te boobu baayam mu ngi doon takk di dem xel kom nga nekk ci kër goo xam ne xamuñu lan mooy njëriñu la ngay wuti sa digganteeg sa borom bàyyam bi ma ne ah man dey xanaa ni may def day ma yéem ma ne ko dem xel xelkom te xam ne boo demee xelkom fa lay wére ñun ñu ne ci ndigal li nga fi bàyyi baayam ba mu demee koom ñu nekk ci fàllu nekk ci fàllu ñaari fan mu mel ni fàllu musta lekk à ba tey dew ma ca docteur ndax man baatin moo ëpp ci baatin moo ëpp lu may dox ci ak taalibe la ma la ma nafare ca daara ja man ci loolu laa ëpp lu may dunde bés boobu am na xale bu bu mu lekk ndooloon à boo xamante ne bokku ju kër mu nga dëkkoon Medina ñu ne xale boobu day dem Suisse yaay ji woo ma ne ma tee ngaa indi fàllu lijjanti ko ndax mu dem si faju ji ma ne ko fàllu Cheikh Ibra dina ko faj fàllu mu ngi fi ba tey am na tey vingt et quelque année ndeysaan tout tànk boobu ba mu jógee Suisse def na Suisse deux ans ñibbi si daal di wàcc liggéey ndax dañ naa afro ba wéruloon waaye man boobu maa ngi ko takk ci ndigal déggal sa borom kër li mu def ci yow nga def ko ci njaboot gi man foofu laa liggéeyee muy anecdote boo xam ne rek dama ko doon jox soxna yi nga xamante ne bi ma leen jox naan njobootu kanaara amul boo déggalee sa boroom kër bàyyi ko xel danga yar sa njoboot ndax doo bëgg ku la gën te doo bëgg ku gën sa njoboot ndax am na nooy bàyyee sa doom ne njobootu kanaara la mooy dox ba nga xamante ne bu ñu demee ci école bi jàng ba wàcc def examen war a xaar seen résultat ña ngay def par groupe groupe di def ay sorti dem ba géej amaan na sax ñii dinañ tàggoo waaye ñenn ngi duñu tàggu seeni waajur ndax dama dend ak école da gis ku toog ba trois heures daw di seet si sa doom parce que boobu ba léegi gisoo ko ba mu xëyee ba tey wàccu nga ñëw ñu ne la dafa dem géej bëri na loo xam ne sax ci man nii lañ daan ñëw laaj ma ndax gisuma leen ma ne ko ah am na xale yoo xam ne dem nañ sorti de xale yooyu noonu dina ci am ñoo xam ne du ñu ñibbisi dañuy lab ci géej gi nga war a yuuxu boo yuuxoo du yem ci yow rek dëkkandoo jóg papa jóg magu papa jóg munoon na faa bañ a yegg te am na ci ñoo xam ne kat jàppal ni ñu ngi lay jooyle waaye bu ñu toogee ba dem seen kër dañ naan na ma yàlla baal xale bi nag am da koo bàyyi ci li ko neex de kon njaboot du nekk war naa daw yaayam da koo bàyyi ci li ko neex muy man ak sama morom yépp ci sama bopp nag laay njëkkee ndax moo tax ma wax ci ak taalibe joxe anecdote boobu ci fàllu ba ci soxna yi duma leen may dara duma leen may dara mooy euh, liggéey neexul fayeeku moo neex ni ko maam Cheikh Ibrahima Fall daan waxee liggéey neexul fayeeku moo neex booy liggéeyal yàlla day mel ni lu metti ndax lépp luy sa naf su bakkan doo ko topp kon loolu du neex waaye boo ko boo boo ko boo ko nangoo liggéey ba fayeeku jot wet boo gestu ñu fay la bu dee réussir di nga réussir bu dee kër di ko di ko tabax bu dee oto bu rafet dinga ko di ko di ko war nga nekk doom joo xam ne nag di soxna soo xam ne forom bu ñu bëgg la ndax sa yar ak sa teggin boo ñaawee sax kenn du ko gis waaye da ngay gis ne koo xam ne danaan waaye yaay waañ wi daf may lakk booba yaa ngay gën a ñaawal sa bopp taar gi yàlla def ci doomu aadama te jëwam la ne muy leer ku ko gis bëgg ko muy ci xale yu góor yi muy ci xale yu jigéen yi may ñaaxaat waajur yi foofu di ñaaxaat bàyyi ak loo sonn sonn sonn soo ñëwee dénkaatal sa soxna ñetti kàddu yoo xam ne bëccëg bi fu ma doxee rek day répercuté wu ci bopp bi danaan ah man de kon naa defaat lii mbaa du sëñ bi daa gis ne damaa toppatoowul kër gi bu baax su ko defee da koy yokkaat courage yokkaat ko ngor yokkaat ko jom su ëllëgee personnalité dal di taxaw ma leen di tàggu nag yéen njaboot gi di tàggu soxna yépp di leen ñaax ci waxtaan wi nga xamante ne ci Mouslih TV moom lañ fi waxtaane ma jàpp ni waajur wu ci nekk muy ko jigéen ka muy ko góor ki danañ gën a wasluwaat àq ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu di leen tàggu di leen ñaanal gudd fan ak wér mucc ak muccale wér ak wérle barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam